Feeling Dakar dal leen ak jàmm ci xibaar yi li ci euh, gën a fës nag bokk na si euh, nit dof mi nga xamante ne nii daal dina yëkk ci ay kàddu euh, jëmale ko ci ki nga xamante ni moom moo di Macky Sall waaye tamit dinañ wax ci ki nga xamante ni moom moo di Adji Sarr mi nga xamante ni nii bu ñu sukkandikoo ci ay sources rek moom mu ngi waaj a defaat beneen sortie waaye tamit dinañ wax tamit ci plainte bi nga xamante ne nii waa Dakar ci daan nañ koy def ci yenn ci ay activistes yi nañu wax tamit ci ki nga xamante ne ni moom moo di euh, Yaxam mbay mi nga xamante ni nee nañ dafa daal di feebar waaye tamit dinañ wax ci euh, le motif bi nga xamante ne nii daal di woon fi euh, xew ay weer ci ginnaaw bi nga xamante ni nee nañu cité mixa lañ ko daal di defee woon ba ñu ate woon ci loxo ay ndaw mu daal di siiwoon lool mbokk internet yi lii moo gën a fës ci bopp xibaar yi dañuy daal di ñëw rek ci faram-fàcce gi.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 di euh, le quotidien bokk tamit euh, ci euh, APR moom nag Yakhya Mbaye ci ay information yoo xamante ni daal nañ ko jot rek moom moo di moom dafa daal di feebar feebar bu metti ba nga xamante ni nii ay complications cardiaques la daal di am ba ñu ko daal di évacuer fi nga xamante ni nii moom moo di ci euh, France euh, gannaaw ba nga xamante ni nii ay weer a ngi nii moom Yakhya Mbaye mu daal di euh, amee feebar ci noonee nag Yakhya mbay daal di woon def li nga xamante ni moo di benn plateau Ndumbelaan foofee ca Sen TV waaye nag yaaxam mbay mi nga xamante ne ni moom euh, ay minute lañ ciy teg rek euh, ci début émission bi moom euh, dafa daal di amee li nga xamante ne ni moom moo di malaise ci noonee nag lañ ko daal di yóbbee. fi nga xamante ni moo di ca hôpital gannaaw loolu nag ñu daal di koy évacuer fi nga xamante ni moom moo di ca France ñaanal moom Yakham Mbaye moomule yàlla tànneel ko ak jàmm ak képp koo xamante ne ni daal dina tawat bu ñu jugee ci loolu nag dañuy daal di wax ci li nga xamante ni moom moo di ay activistes yi nga xamante ni nii waa Dakar Actu dañ leen daal di woon porter plainte kii di directeur général bu Dakar nag moom moo daal di woon porter plainte yenn ci ay jeunes activistes loolu waral loolu nag moom moo di ay saaga ak ay wax yu ñaaw yoo xamante ni nii daal di woon koy yëkk daal di woon nañ ko yëkkati teg ko ci kaw euh, site d'information boobee di Dakaractu ci noonu nag. secrétaire général bu SYNPICS moom nag dafa daal di euh, demandé ba noppi daal di am euh, ci lu juge ci directeur bu média boobee di Dakaractu li nga xamante ni moom moo di dindi bu ñu ab dindi plainte boobee nga xamante ni nii ñu ngi ko jagleeloon benn euh, groupe bu nga xamante ni nii ñoom nag lu ñu leen di euh, toppee rek moom moo di ay euh, saaga ak lu ni daal di koy jëmale ci li nga xamante ni moom moo di site d'information générale boobee di Dakar Actu ci noonee sax ñu fàcci leen rek ni que groupe boobee nga xamante ni nii ay saaga ak wax yu ñaaw la ñu daal di jëloon yëkkati ko teg ko ci kaw Dakar Actu ci noonee nag lañ daal daal di tegee loxo foofee ca division des investigations criminelles ci noonee nag euh, la ñu daal di euh, ñaanee rek ngir ñu daal di leen euh, libéré actuellement nag ñoom ñooñee daal nañ leen bàyyi. bu ñu waa jógee ci loolu nag dañuy daal di wax ci ki nga xamante ni moom moo di Nit Doff Nit Doff nag daal di woon na amal ab entretien ak site bi di Sénégo. ci noonee nag moom nit dof daal dina yëkkati ay kàddu jëmale ko ci ki nga xamante ni moom moo di le président Macky Sall nit dof sax daal nañu gis rek ni que moom euh, partisan Ousmane Sonko la waaye nag ci boobule euh, interview moom nag daal dina yëkkati ay kàddu di wax rek ni que Macky Sall gestion bi nga xamante ni nii mu koy def dara baaxu si ba noppi daal dina wax rek ni que moom euh, Macky Sall teelul réagir ci li nga xamante ni nii moom moo di li fi jot a xew muy. manifestation yeeg li ni mel dafa dal di bàyyi ba nga xamante nii ay ndaw daan nañ ci ñàkk seen bakkan ñi jëlee ci ay gaañu gaañu looloo waral mu daal di jël li nga xamante ni moom moo di ay dogal loolee nag nit dafa dafa daal di wax rek ni que euh, daf ko daal di euh, yéex a def ci noonu sax. Euh, ci début mars bi rek moom daal di woon na wax rek ni que daal dina commettre li nga xamante ni moo di ay erreur yu bëri waaye nag léegi nii lenn kese moom moo mën a euh, saafara loole moom moo di euh, mu xamal ko rek euh, ni que li nga xamante ni moom moo di affaire du troisième mandat ak li ni bu mu ko fi tudd bu mu ko sax xalaata def lenn loo xamante ni nii Macky na ko def ci boppam aussi moom moo di fii moom munu fee toog quinze ans wala 30 ans ak li kàddu yooyu nag la ki nga xamante ni moom moo di euh, nit dof daal di euh, yëkkati jëmale ko ci euh, Macky Sall di ko xamal rek ni que moom du yàlla du yonent bu ñu noppee ci loolu nag dañu daal di wax ci ki nga xamante ni moom moo di Abass Fall gannaaw bañ ko libéré moom Abass Fall nag daal di woon nañ koy invité fi nga xamante ni moo di ca RFM ci tey jii ci talaata bi moom nag ci émission boobee di RFM matin moom nag Abass Fall daal na wax ci li nga xamante ni nii. moom moo ñeel Adji ak li ni mel euh, ci noonu sax moom euh, Abass Fall daal dina xam la rek euh, ni que Adji Sarr moomee jamono ji dafa nekk en danger ba tax na sax mu ngi biir li nga xamante ne ni moom moo di torture physique dañuy daal di teewlu kàddu yi nga xamante ne ni. moom Abbas Fall daal dina koy yëkkati foofee ca RFM matin. par rapport ak coow li li ko waral mhm. euh, mbirum viol bi ko aji Sarr ne Ousmane Sonko mhm. dafa euh, yegg ci moom ci benn salon de massage Ousmane Sonko gis ne complot la mhm. aji Sarr gis na après kàddu yi mujj yëkkati yéen ñi nga xam te ne ne jege ñaale Ousmane Sonko c'est vrai que ñu bëri danaan complot mais est que euh, moom lu mu fa doon wuti ba yooyu yëpp am xëy na bu fa demoon ca salon ba coow li yëpp di ko topp. kon amul droit dem ci salon de massage. mais am na euh, pourquoi mu fay dem. mais pourquoi du fay yeneen salon professionnel mi ngi fi foofu noonu. pourquoi mu dem foofu ah kon da nga bëgg wax ne foofu c'est pas un salon. est-ce que est-ce que c'est clan mais ah, salon clandestin la. dëgg dëgg dëgg lañ ko bëgg du foofu. clandestin salon boo xam ne am na ay papiers am na léppam am na autorisation am am na léppam nga ni salon clandestin la. sauf que ah, sauf que ci ah, agrément bi ci kayit bi euh, massage bokku ja. waaw euh, li loo loo leen di toll Adji Sarr ba léegi gën déggu leen ci. non non mais xam nga ñun wax fa dëgg yàlla non duñ ko topp wax fa dëgg yàlla duñ ko tontu xam nga lu ñu bëgg. xam nga ñu bëgg nee nañu waat Ousmane Sonko bu fekkee li muy wax du na ñëw ñu waat. non mais non xam nga. na ñu waat waaw mais xam nga ndeysaan dama ko yërëm sax. Eh, dama bëgg. en quelques secondes waaw dama ko yërëm parce que dama bëgg euh, attirer attention des droits de l'homiste parce que droit de l'homme du rek seeti ay nit ci prisonnier du ay ay nuy jàpp xale bi elle est en danger ses droits sont ne sont pas ne sont pas. maanaam nañ ko wàllu nañ ko wàllu. dimbali ko loxo yi mu nekk mu jóge fa parce que. jërëjëf il est en train d'être euh, ba tey euh, ci li nga xamante ni moo ñel kàddu yi Abass Fall daal di euh, yëkkati foofee ca RFM matin ñu daal di jot benn information boo xamante ni nii kii di Adji Sarr nag dafay daal di defaat beneen sortie ngir démentir li nga xamante ni nii moom la Abass Fall daal di yëkkati. ci noonee nag gannaaw ba Adji Sarr daal di woon defee li nga xamante ne ni moom moo di benn sorti foofee ca Leral TV ngir contre euh, contredire ñi nga xamante ne ni ñoom ñoo di partisan Pastef fii ci kàddu yi nga xamante ne ni doon nañ ko yëkkati ci média yeeg li ni mel source bi nga xamante ne ni moom moo joxe woon boobule information euh, ni que Adji Sarr dafay daal di wax foofee ca leeral moom nag moom même source bi moom moo daal di joxewaat boobu bile information rek ni kii di Adji Sarr mu ngi euh, préparé waat li nga xamante ni moo di euh, beneen euh, sortie ngir démentir ki nga xamante ni moom moo di Abbas Fall gannaaw ba mu waxee rek ni que moom moomee dafa daal di a nekk en danger ci noonee sax dafay daal di subir li nga xamante ni moom moo di ay violence physique dañuy daal di wax nag ci li nga xam te ni moom moo di conseil national de réglementation de l'audiovisuel di CNRA CNRA euh, nag dafa daal di génne benn communiqué boo xamante ni nii dafay daal di dànkaafu ñi nga xam te ni ñoom ñoo di chaîne de télévision yi nga xamante ni nii ci jamono weeru koor gi. dañoo meloon ni rek ñuy def affaire rivalité ci li nga xamante ni moom moo di tarixa yeeg li ni mel ndax nag gis nañ weeru koor bi ñu génn rek chaine de télévision bu nekk rek dafay daal di dalal benn tarixa mu mel ni nag euh, dañ doon def li nga xam ni moom moo di euh, compétition ci noonu sax ñuy gis ci internet beeg li ni ñuy def euh, li nga xamante ni moo di sondage ak li ni mel loolee nag le CNRA daal di wax rek ni que ku weeru koor gi ren gi du fi amee ba tax na nag daal dina génne benn communiqué boo xamante ni nii daal dina xam ne rek ni que dëpp seen de télévision boo xamante ni daal di nga def li rek dinañ la daan. démb nag ci uh, xibaar yi daal di woon nañu wax ci ki nga xamante ni moom moo di uh, Baye Ely mi nga xamante ni nii uh, moom moomee dafa daal di amee li nga xamante ni moom moo di AVC ci noonee Baye Ely nag daal di woon yëkkati ay kàddu di wax rek ni que. moom moomee euh, sénégalais yi euh, li nga xamante ni nii loolu la leen ji euh, remboursé wuñu ko loole ci noonu nag mel na ni wax joojee dañ ko daal dégg ndax nag Baye Ely gannaaw ba nga xamante ni internautes yi ñoom nag dañoo daal di defoon benn collecte pour euh, Guy Marius Sagna ngir euh, utal ko ab oto waaye nag loolee bañ ci euh, noppee rek dañoo daal di jublu ci ki nga xamante ni moom moo di Baye Ili ngir defal ko li nga xamante ni moo di benn téléton loole nag ngir jàppale ki nga xamante ni moom moo di Baye Ili mi nga xamante ni nii nee na activité am yëpp euh, taxaw te nag euh, gannaaw yàlla ak yoonte bi euh, profession wam rek la daal di amoon muy li nga xamante ni moom moo di comédie ba tey jii rek moom Baye Ely moom le ñu koy ñaanal rek yàlla taneel ko ak jàmm dolli ko sutura képp koo xamante ni nii daal di nga tawat dañuy wax nag ci lomotif bi nga xamante ni nii daal di woon na fi xew ay weer yi ñu génn mu nekk nag lomotif boo xamante ni nii daal di woon yëngal réseaux sociaux yi ak yenn ci ay site internet yi Euh, femme bi nga xamante ni nii moom moo nekkoon ci boobule vidéo la ki nga xamante ni moom moo di Adamo daal di woon euh, dalal ci direct yi nga xamante ni nii da ko daan di euh, da koy def. ba tax na nag moom femme boobee dañuy daal di teewlu rek waxtaan bi nga xamante ni nii daal di woon na koy sëkk ak Adamo. woo ma ma daal di sol génn dem ci école ne ko wàcc ne ko hmm. moom daa feebar mi ngi hôpital xaw ah parce que man loolu moom dégg naa ko te aussi loolu bokk na si lu ma gën a jaaxal parce que rek tey avant di xew ma dafa mel ni dama ko sensibiliser tey toute la journée jëm nañu ko sensé di reetaan tey tey tey ñuy waxtaan naa Abdou nii ak nii tey su tey ci nga avant nga may woo noonu. Mhm. woo naa sama téléphone copine bi ne ko Abdou fan nga nekk man maa ngi doom ci clinique bi foo nekk man man maa ngi côté Croix Massal damay ñibbi Mbour. mais fi muy liggéeyee moom sali moom ñëpp ko xam. clinique bi. clinique bi ci tali bi la nekk ñëpp xam nañ clinique urgence 24. te ñëpp xam ne tamit fa lay liggéeyee. waa ok léegi li ma la a laaj mooy euh, maanaam rapport sexuel yi ngeen doon def yéen ñaar fan ngeen ko doon defee ci appartement bi wala piscine la woon. non du piscine de. fan la ndax benn vidéo bi dafa mel ne da nekk ci biir ndox. no non vidéo yëpp ci la la dara bu weex la woon. ah kon dara bu weex bi la waaw. non mais du woon piscine loolu yëpp si néeg bi la woon. Ah, si néeg bi la léegi rapport sexuel yi ba ngeen ko doon def ah, moom moo doon filmé wala yow. mais man gis nga sama loxo yi ci vidéo bi carrément ne man filmé wu ma. ok kon sax moo waroon ñaar mais moom moo ko doon filmé. ça se voit bu baax ne loxoom bi soo xoolee bu baax nii moo ko doon filmé. moom moo doon filmé. waaw léegi yow ba ngeen doon def rapport sexuel mu lay filmer xamoo ne yow wi ngi lay filmer wala wala xam nga ko mais da nga jàpp ne maanaam yéen ñaar la. non parce que man Abdou jàppee woon naa ko lu ëpp sama far. waaw te man ak moom sekk nañ dund nañ dundu naa de génne na ma situation yoo xamante ne comme ni nga ko waxee sànq man moom. waaw ni mu la situation benn affaire la. jigéen nga am nga problème ak sa famille mu ñëw wutal appartement. ngin nekk fa yéen ñaar mu jàppale la te du loolu la. waaw ok loolu la génne la mais loolu mënoon na ko def tamit ci yeneen manière yu du mel ne lu lay utiliser ndax lim la def nii utiliser laa ko jàppee comprendre ñu wax nag ci li nga xamante ni moom moo di euh, groupe euh, future Média bi nga xamante ni nii daal di woon nañ leen euh, cambriolé ba tax na nag dépôt papier bu groupe Futur Média nag bi nga xamante ni moom moo nekk foofee ca Derkele foofee nag ay Samba Boy daal di woon nañ fay dugg ci guddib 21 jàpp 22 mars bi ñu génn. ba tax na nag bu ñu ah, sukkandikoo ci ah, Vox Populi yi nga xamante ni moom moo daal di joxe boobule xibaar lu mu daal di xam la rek moom moo di ay ah, Samba Boy ñoom ñooñee daal di nañu yóbbaale li nga xamante ni moom moo di trois bobines de papier yoo xamante ni. bu ci nekk rek euh, total bi mu ngi euh, toll ci 1,5 tonnes. tax na nag ñaari euh, cambrioleur yi nga xamante ni nii kenn ki mu ngi wuyoo ci turu TD kenn ki di B moom nag nga xamante ni nii daal nañ leen identifier ñoom ay chauffeur livreur lañ nga xamante ni nii ñoom ñooñee nag dañ doon faral di ñëw ci bërëb boobee. gannaaw ba ñu leen tegee loxo démb nag dañu leen daal di euh, defeere ba noppi nag euh, charge yi nga xamante ni moom la ñu euh, teg ci seen ndoddule rek moom moo di sàcc bi nga xamante ni nii daan nañ koy def ak li nga xamante ni moom moo di usage de moyen de locomotion li nga xamante ni moom moo di resteleur bi nag moom moomee nga xamante ni nii ci marché Castor la daal di nekk moom nag dafa daal di daw waaye nag euh, lu takku ci li nga xamante ni moom moo di butin bi daal di woon nañ koy fekk ci a magasin moom boobee internetu Feeling Dakar cant ngërëm ñeen na leen li lañ leen andiloon ci ay xibaar ñu leen di ñaanal jàmm te di ko sàkku ci di leen jox dig daje ëllëg ak jàmm ci yeneen xibaar